dañu ñëwoon fii tey ci ndigalu euh, kilifa yi pour indil euh, comité bi nga xam ni xalif général des Mourides moom moo ko mettre en place ñu koy wax junnatun euh, ñu indiloon leen résultat recensement bi nga xam ni ñoo ngi ko doon def ci dëkk bi bi nga xamee ni taw bi indi na fi ay loraange bi ñu ñëwee nag dénombré nañu ni fukki junni ak benn ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo xam ne dañu am loraange ci ci ci mbënn mi donc léegi document bi jox nañ ko waa junnatun léegi bu ko defee ñoom dinañ ko exploiter xool nan lañ ci mën a def am na ñoo xam ne seen kër dafa daanu am na ñoo xam ne seen miiru dafa daanu am na ñoo xam ne ndox mi dafa nekk ci seen biir kër am na ñoo xam ne seen i yére la yàq am na ñoo xam ne seen i meuble la yàq am na ñoo xam ne seen dundu dund la yàq donc mënuñu am benn typologie unique ci dégâts yi nga xam ne moom la ndox mi def mais daal xam nañu nii donc euh, pour cas yooyu yëpp ménage yi nga xam ne recensé nañ leen yëpp yu ci bëri spécifié nañ yan yàqu-yàqu lañu am ba jox naa ñu ko waa Junatu koñ yu bare bari ak yoon yu bare bari gis nañ ne libéré nañ ndox mi génn na ci kër yi ba am na sax ñoo xam ne jóge nañ fi ñu nekkoon ba delluwaat seen biir kër yi loolu moom moo mën nañ ko wax et du ñu ni fépp jeex na waaye li ëppoon jeex ma sant monsieur le sous-préfet d'abord ci li nga xam ne indi na ko ndax dafay liggéey boo xam ne li ñuy def ñun mënuñu koo def te sukkandikuñu ci loolu muy recensement bi te def nañ ko muy liggéey bu mucc ayib ndax ñun ñoo nekkandoo woon ak ñoom ci terrain bi xam nañ ne li ñu mobiliser ci ay agents euh, dépassé de deux cent et quelques agents yoo xamante ne kër gu ne dinañ fa wàcc ba li ñuy bind xam nañ ne dañ koy teg ci lu leer ndax kër gi dañuy dem ba xool ne lii euh, sinistré la ñu teg ci seen bët door a mën a bind euh, boole ci ak lépp loo xam ne tamit mooy tax ñu xam ne li ñuy wax wér na kon ñu ngi koy sant. di sant ci biir loolu l'état du Sénégal ndax loolu ndimbal la lu ñu indil waa Touba leneen li ci des itam mooy tey jii day bis boo xam ne ñoom biñ ñu tegalee loolu fekkoon na ñun ñu waaj ba jekk euh, ngir tàmbali sunu liggéey ndax xam ngeen ne comité bi mooy comité de pilotage bi dara taxu ko jóg lu dul ànd ak du Mamadou Mountakha muy Touba ci kanam muy commune de Touba muy Hizbut Tarqiyyah ñëpp dañoo boole doon benn structure ànd liggéey bi ngir fexe ba ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënn mi ñu an fexe ba ndimbal yi sëñ bi génne ak nit ñi taalibe yi liñ fi indi ñu fexe ba mu àgg ci ñoom loolu nag fi ñu toll di euh, recensement bi dañ doon xaar ñu fexe ba euh, procéder par benn méthodologie bu leer nañ ba nga xam ne distribution bi dina gaaw waaye dina mucc ayib fi ñu toll nii def nañ ay point yoo xam ne ay points magasin yu yaatu yoo xam ne dañu fexe mu jege population yi wàcc nañ tout le dispositif li ñu doon xaar rek mooy préfet ñëw ñu mën a tàmbali liggéey bi ndimbali li li ci jiitu nga xam ne moom ñëpp ñoo koy bokk moom li ci jiitu dina am dund masalan lu mel ni diggante ceeb ak diw ak lu mel ni xaalis tuuti loo xam ne dina dimbali ndax nit ki nga xam ne nekk na ci jafe-jafe la nga koy jox lu mu néew néew néew du indemnisation maanaam du approche boobu ndimbal la loo xamante ne sëriñ bi képp ku ñëw Touba ci njabootam nga donc massaw gi mu lay massaw loolu la ci loolu lay firi taalibe yi ci loolu lañu fekk si sëriñ bi moom moo njëkk indi deux cent millions de francs CFA taalibe yi tàmbali tamit ku ci ne di indi loolu ñu indi nag nit ñee ko tax a jóg ñun tamit dañ koy sàmm ba mu doon loo xam ne day àgg ci nit ñi waaye nag boo ko xoolee li ñu jot a jël muy recensement bi muy onze mille cent trente neuf ménages yi ñu jot a recensé rek ñu ci calculer war leen ko jox ça se situe entre sept cent millions de francs CFA jëm huit cent millions. léegi kenn ku ne ci gën a néewle dina am ñaari saaku ceeb ñaari saaku cinquante kilo ak fukki litre du diw ak juróomi junni gën gaa néew waaye am na ci ñoo xam ne dinañ ëppale loolu ndax di nga gis koo xam ne faw ñu jàppalewaat ko mu gën a taxaw am na ñoo xam ne tamit euh, ñaari saaku ceeb bi day du am solo trop ci ñoom ndax daara la ñu doon donc daara ji day doon barab boo xam ne la fay nekk ak la fay yeewoo day gën a am solo loolu dañ koy yokk donc maanaam daal ci gàttal euh, fii daal moom waaj nañu ba jekk ndax ndimbala sëñ Tuubaa moom lañu àndal te ndongo yi taalibe yi seen xol nangu na ñi li ñu yor jox ko sëñ Tuubaa moo leen gënal téyel ko seen bopp loolu mi ngi dox wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an aalikin mari